di jéglu aussi pour euh, chef de village bi nga xamante ne waroon na fee teew waaye am réunion ak sous-préfet bu Sindia moo tax tey mënu fee teew donc fii ñu toll nii di waxtaan moom actuellement mi ngi def réunion ak sous-préfet bu Sindia moo tax euh, ñëwul euh, di woote tey ndaje ngir indi ay leeral ci li nga xamante ne xew na fi fan yi muy ay xew-xew yu nga xamante ne euh, lu doy la ci lu ñuy tuddee nation ndax nation dafa am lu ko lal dafa bokk ci lu ñuy wax cohésion sociale dafa bokk ci lu ñuy wax paix sociale paix sociale boobu nag tey PDG wu Sedima mi ngi koy commencé di sappe mi ngi commencé di jaxan jaxase askan bi ngir sauver ay intérêt loolu nag moom la askanu Jilaax di ñaawlu waaye tamit moom la collectif pour la défense des intérêts de Jilaax di ñaawlu loi boobu nag mu ñuy tuddee day jaxase ngir en tout cas bëgg rañe moom la ñuy wax ni loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg suuf soosu nga xam ne tey moom moo nekk jafe-jafe yi ñépp xam nañu suuf soosu mi ngi nekk ci biir commune Sindian suuf soosu mi ngi nekk ci dëkk bu ñuy wax Jilaax délibération boobu commune Sindian moo ko def en 2012 mu indi woon ay jafe-jafe ndax amoon na un problème de consensus délibération boobu nag moo tax ba am bail am titre foncier may fàttali ni. li nga xamante ne xew na lundi nekkul lu bees ndax en 2008 jafe-jafe bu mel noonu amoon na waaye ba mu amee kilifa yi dañoo jóg tase waxtaan ànd ak à l'époque adjointe préfet bu Mbour bu ànd ak euh, euh, sous-préfet bu Fissel bu Sessène ak bu Sindia ñu ñëw ngir régler problème bi président commission domaniale yu trois communes yëpp ñëw ñu def un procès verbal ñu waxtaan ba trouver un lieu benn délimitation bi nga xamante ne defoon nañ ko ba pare li desoon moom mooy techniciens yi wàcc suuf def délimitation bi ni commune Fissel fii nga yem commune Sessène fii nga yem commune Sindia fii nga yem liggéey boobu nag àggul ndax amul suivi amul évaluation loolu nag moom mooy dox ba agsi tey di jafe-jafe yi diggante di tar di commencé jël ay proportions yoo xamante ne eh, jëmul kër kon damay fàttali di confirmer encore li nga xamante ne moom mooy mës nekk position wu Jilaax que suuf si na leer ci bopp ñépp Jilaax la nekk ci biir commune sinja moom la nekk loolu dafa war a leer ci bopp ñépp jëm nag ci wàllu projet bi nga xamante ne moom la ñuy wax muy projet wu Babacar Ngom ñun waxaguñu waxu turu projet dafa am suuf soo xam dañ ko koo jox ngir mu liggéey mu dem état wu Sénégal defal ko un titre foncier boo xamante ne jaarul fu mu war a jaar te techniciens yi nga xamante ne ils sont sérieux seen xam-xam màcc ci wàllu suuf ci màcc ci wàllu foncier ñoom ñëpp d'accord nañ ci ni titre foncier warul am foofu parce que zone euh, zone zone zone euh, de terroir la mais aussi c'est une zone agricole alors que dans une zone agricole on ne peut pas n'est-ce pas donc décerner titre foncier loolu moo tax titre foncier boobu ñuy ñaan son excellence le président Macky Sall bu fekkente ni askanu Jilaax ñor na ko commune Sindia ñor na ko na ko dindi joxewaat suuf si parce que titre foncier bi légalul légitimul bu fekkee liggéey rek soxlawuñu un titre foncier waaw li ko waral mooy tey tey tey sédiment fa mu ne à côté yaa ngi ak plan REVA plan REVA soo foofu amul délibération te délibération bu am sax ci waa ANIDA dañ ko def. amul bail amul titre foncier mais promoteur bu fa mën a ñëw contrat ngay signé contrat boobu soit 5 ans lay nekk wala 10 ans lay nekk boo paree bu askan bi gisee ni li nga liggéey baax na gis nañ ci seen bopp nga dem keneen ñëw bu fekkee euh, euh, ñu ñu continuer ak yow bu fekkee maintenant lu li nga def wala boog li nga liggéey gis ni gisuñu seen bopp ñu bàyyi la ut keneen. loolu nag mooy partenariat gagnant gagnant askan bi loolu la ñuy xaar kon ñun lu ñuy xeex collectif bi lu muy xeex Jilaax lu muy réclamer moom mooy nañu dindi titre foncier bi nga xamante ne allah kulli alin intéressé wul dëkk Jilaax bi dëkk Jilaax intéressé wul aussi donc les populations les populations du Jilaax